ba tey ci seen scandale du jour Abdoulaye Mamadou Guissé ginnaaw bi ñu ko dalalee foofu ca fajiri euh, euh, euh, mbir yi nii la demee moom ak li nga xamante ne moom mooy laa jeune fille ki ñuy naan Salma yaakaar naa mu ngi noonu ñu déglu ji ko ñëwaat. bu gën a am solo que leneen loo gis. Sénégal wala toog muy dox bi yaay. donc dafa toog muy dox. donc toog toog muy dox. problème bi loolu la. waaw toog muy dox de ñi koy def mooy ku toog si plateau tele di wax suba bu ngoon mais. kuy liggéey ku am kuy am kuy am société ku yore société di liggéey.

nee nga am journaliste nga ah Mamadou Mamadou Abdoulaye Guissé ñaari yi moo mën a am soit mu woo ne leen dama bëgg ngeen invité ma ngeen a ko d'accord ñëwal soit yéen yéen a ko contacter mu ñëw toog ci seen plateau ñaari yi kese mara am parce que man Zé du ma tëb rek dem toogi plateau Walfadjri Mamadou Abdoulaye gisee du tëb rek dem toogi seen plateau googu jàppa jàkkaarloo ak Pierre Edouard ak yow mii Salma kon nag bu fekkee ni première option bi mooy moom moo demandé l'invitation ak lu mu munti doon il mérite le respect benn beneen bu ci topp bu fekkee yéen ko invité encore plus man video bi envoyé nañ ma ko envoyé waat nañ ma ko wallahi azim mais nag je condamne fermement le comportement de cette fille Abdoulaye Mamadou Guissé mat na ko lu mu ndaw ndaw mag ma bàyyi te tànk leer na la ni du too toroxal sa pap ci mbooloo bul toroxal papay jàmbur ndax Abdoulaye Mamadou gisee am na doomam bu toog ci wet di ci tele ba di seetaan ak position bu mu munti am ak lu munti xew dégg naa fin video bi nga ne tu es trop pour me conseiller du dëgg gis nga conseil nit nit a ngi toog xelam neexul sa mu conseiller la léeg-léeg nit ku wérul ñëw wax la ay wax mu dem nga ne i pourtant kii def bu def kii day def def lu deful de fekk en kay xelam neexut waaye am na lu ko yàlla may man nee naa ben ben ben conseil doomu adama man je suis comme ça man lumay nit di wax donte je suis pas d'accord avec toi mais je prends le temps d'écouter parce que ci lay xam lan la ciy jël ak lan la lay tontu Abdoulaye Mamadou il est en tort il ne l'est pas man je cherche pas à savoir la may ñaawlu mooy que ci seen plateau la leen fekk budul sax moom ngeen respecté ñi leen di et nga euh, dafa c'est la c'est le ton qui fait la chanson la fille a été arrogante et indisciplinée elle est très indisciplinée ni mu tok muy dox bi mo wax ak man et puis qui dirigeait qui diriger euh, euh, elle est fautif aussi elle est fautive. parce que gis nga nit ak nu mu munti doon bu xasee ba caméra takk ba nga invité nit ki jëkk le minimum de respect lu gën a ndaw ci respect jox ko ko bu caméra yi fayee yekk ko la la neex mais Walf lii bokkul na ci li tax ñenn ñi am principe naan la man sama tànk duma ko teg Walf buñ ma invité woon du dem Walf parce que gor moomul yii gor moomul cette cette cette situation mënu koo dund man de man bu doon maay Abdoulaye Mamadou Guissé waxuma duma tagaat sama tank Walf de waye duma ko sëkk ak ni je dis pas que duma demaat Walf waye duma ko sëkk ak ni parce que nit bu la nawloowu respecté wu la man pour man amo loy def ak mom amo loy wax ak mom di xale bu jigen bi elle a été incorrecte na fekk yi nak di tatchu nan deug la tok muy dox bi moko déranger man je suis pas terme bi Abdoulaye Mamadou gisse day tok muy dox yor na kërëm yor na njabootam yor na yor na famille man xamaluma ko dara kon mënuma ko juger ce que je peux juger par contre indi ci sama xalaat mooy ci comportement de cette journaliste journaliste dafa perte valeur am journaliste dafa nekk loo xamante ne amatul benn fulla ak fayda man man damay rus sa di prononcer le nom journaliste parce que amatul benn fulla ak fayda amuñu éthique amuñu déontologie luñ lay njëkke wax nous, en tant que nous ñi nga xam ne dañoo def ay formation présentatrice ba animatrice la première chose qu'on t'apprend c'est de mettre à l'aise ton invité man boog loolu lañ ma jàngal pourquoi ñu naan la sa invité des fois boo ko invité sax tooñ ko ne ko mais dangaa sañse donte xam nga ni sañsewul ne ko dangaa sañse laa mu xaw a firi mën a mën laa jox li nga bëgg mais am na ñoo xam ne dañ lay invité duñu wax ak yow ba ñu ne un deux trois plateau ñu commencer le débat il faut avoir une affinité avec l'invité avant ñuy taal les mu mën laa jox li nga soxla jox askan bi lu mu soxla ci respect nit ki mënoo koo jëlee fa mu jóge ñëw ba ci sa biir plateau nga bëgg ko toroxal man plateau boobu je sais que je petit pour ñu invité ma mais bu ñu ma fa invité woon du ma dem. ndax danañ ñoo te dina am ci am ci kon ci te fu muy na respect fu respect amul bu fa il faut c'est très important Sénégal nag fait fekk ñoo bëri Abdoulaye ak quel soit lu c'est l'invité c'est l'invité lan mooy invité invité mettre en valeur parce que tey moom moo nekk di sa émission te moom bu fekkoon elle était am na lu muy xam wala mu ngi exercer vraiment le métier journalisme waroon na bàyyi xel nawlem yi mu bokkal plateau kon nag lii nii du lu rafet encore une fois nit boo ko invité da nga dalal nit boo ko invité bu fekkee am dof la sax mais wonal nit ni kii nit la Bijou Ngoné loolu kese moo tax ma naw ko loolu kese moo tax ma fonk ko ba j'ai eu cette courage maanaam maa ngi dem defi formation animatrice ba ma ko gisee confrontation muy invité ñi nga xamante ne sénégalais dañoo jàpp ne ñoom tekki dara duñu ay nit alors que ci yàlla ñun ak ñoom ñoo yem mais da leen daan invité imposer leen sénégalais yi ne leen ñii ay nit lañ pourtant da leen doon jox respect jox leen temps d'antenne ñu wax li ne si ñoom. waxantuma la nak un responsable Mamadou Abdoulaye gisse du xalé bu ndaw magum jëm la quel que soit parti politique bu mu bok wax deug fa yalla le respect avant tout te liñ leen jangal moy c'est de mettre à l'aise l'invité bañ nañ ko sa boo dañ a defal briefing ak invité bi ngeen am ben affinité bi bu toogee caméra yi tak ciokas ko togn ko pour mu nek à l'aise meuna firi loolu lañ ñu jangal ñun xawma nak ñenen nit nag ñu ngi lay jàngal dara ba pare doo ko tari te loolu nañ ci yàlla musal mu ngi noonu lii kenn xamul lan la barki alquran man daal man journaliste léegi man daal ah yàlla baax na